voilà donc ñu soobu ci waxtaan bi alors suñ ko déggee monsieur le ministre gis nañ ko euh, on parle des élections locales encore une fois ñuy wax énième report des élections locales euh, fii ci euh, ci ci Sénégal di wax également opposition ak pouvoir ñàkk déggoo bi ñu ñàkk déggoo par rapport à la tenue de ces élections gis nañ sax front de résistance nationale lan lañ taxawal tey jii ne ko ñoom lu mënti am dinañ jàpp élections yi ci 2021 naka nga jàngatee loolu yëpp monsieur maa lay gërëm bu baax euh, xam nga mbirum euh, élection ci àdduna bi yëpp soo ko seetee mooy mooy waxtaan wi mooy waxtaan opposition ak waxtaanu pouvoir ndax euh, li nga xam ne mooy feebar bi muy coronavirus bi dafa gàllankoor lu bari ndax dafay dafa bañ ndaje. loolu moo tax même France tey soo demee ñu ngi wax naan juin lañ waxoon ñu naan dañ koy reporté waat donc dans tous les pays même problème la mais Sénégal euh, opposition bi dañu amoon ay ponk yoo xam ne dañ ko tëraloon ci dialogue bi nga xam ne doon nañ ko waxtaanee ci seen biir ak pouvoir bi ñu ne euh, dañoo dañoo bëgg euh, li nga xam ne moom mooy léegi li leen gën a ñor. mooy fichier électoral bi nit ñi nga xam ne bind nañu leen. te ñu war a wate ak processus électoral bi ni muy demee dañoo bëgg loolu balaa élection amati ñu seet ko ndax ñoom d'accord ñu ci fichier bi ñoom dañu jàpp ne fichier bi baaxul bi loolu amee euh, Sénégal waxtaan ci ak bitim réew ay Union européenne ba ñu fekk si leen ci lañ bëggoon mooy ñu financer. Euh, ñu xoolaat fichier électoral bi ñu financé tam ñu xoolaat processus électoral bi bi ñu ko seet dañu waxoon ne processus bi rek au moins que ñeenti weer pour ñu xool fichier électoral bi. minimum bi moom lay doon. loolu dafa laaj benn dafa laaj benn délai. man nag dama yaakaar sama gis-gisu bopp euh, kenn mënta bëgg dara bëgg itam li nga xam ne moom moom méngoowul ak moom su fekkee ne dañoo bëgg. ñu am fichier boo xam ne dafa baax lépp lu ci yàqu ñu defaraat ko dañ koy jox xam ba mu mat daf leen di jaral ñu jox ko àqam ba mu mat euh, pouvoir bi dañ waxoon ne ñoom mois de février euh, ñoom ñu jàpp ne mois de décembre déggoon naa sax ñu ne am na ñu ki doon waxtaan pour que ñu def ko mois de janvier dama yaakaar ne ñu ma def construction national ñun dañu am ay réew yoo xam ne ay réewu ndaw lañu dañuy soxla progresser dañu am retard yu rëy dans tous les domaines muy domaine nu infrastructure. Euh, ay tali muy domaine ay ndox yi nga dégg ñu koy coow. muy domaine santé surtout que ren problème santé bi dafa posé wu. ba tax na tous les soo demee ci àdduna bi yëpp dañu modifier budget yi en fonction de problème mu jàngoro bi am. kon dama yaakaar ne. mais est-ce que mën nañ ko circonscrire ci euh, jàngoro bi am c'est c'est important ñu wax waxu waxu jàngoro bi mais au Sénégal quand même depuis très longtemps euh, euh, gëj nañ assister date bu ñu tenir ci élection yi jàpp ne date boobu la respecté ko. waaw waaw mais ren ñoom dañu waxoon ne il faut que ñu ñu ñu ñu xam ne fichier bi ñuy watee ñuy watee ñoo ngi seen bopp ñu ngi ci fichier bi parce que ñoom d'accord uñ ci donc dama yaakaar ne loolu comme am na bitim réew ñu dugal seen loxo dañoo war a dem topp loolu ba loolu sës. te benn weer jarul ñoom ci xuloo parce que pouvoir bi yoruñu ko celui qui gañ gouverne ku gagné yow yaay définir mooy yi ngay gouverner li ñuy laaj kay mooy suñu demee ba nga xam ne dem nañ ba nguur gi jeex dañuy woo Sénégalais yi ne leen ñi joxoon pouvoir bi ne leen yéen a gagné yéen gouverner ndax yéen gouverne ngeen ko ni ñu ko doon a gouverner wala déet suñu ne waaw ñu falaat leen suñu nee noo ñu daal leen jël ñu dàq leen ñu dem mais mënuñu ñu dee ci régime bi la ko gis nag puisque le président Abdoulaye Wade dàq na fi élection mais ñaari yoon pour la première fois ci histoire politique bu Sénégal ñu dem ci report des élections locales pour une troisième fois euh, kan mooy responsabilité bi tey. non kan mooy responsable mooy ñi nga xam ne dañu demander ay exigences nee ñu def nangam suñu deful nangam duñu wate. donc l'opposition moo ko xam nga réew. ñun pays yu ndaw yi li ñu gën a retardé mooy ñun ñaari buuy la ñuy xool ba ngay commencé ak fa ngay terminé muy élection voté ñoom dañuy yaakaar ne nguur gi bis bu ñu ko falee léegi dañuy dàq fan lañ ko war a daanee non ñun dañu am lu ñu war dañu am lu ñu war ak peuple bi li ñu war ak peuple bi mooy kuy gouverner yow li nga war a liggéey ci réew bi nga sàkkoog réew nga teg ko mais ñi nga xam ne gouverner wuñ tam kenn ku nekk la nga man nga indi ko. pour mais mais est ce pouvoir bi am na volonté bi euh, parce que quand même évaluation ak audition euh, audit du fichier électoral bi amoon nañu une période pour def ko pourquoi ñu bàyyi ba léegi ñu war ko def et que il wax pour que ñu war a commencer évaluation. du ñu bëri am na ñu bëri tey jii dañoo bañoon ne du ñu ñëw ñenn ñi dañoo bañoon ne du ñu ñëw yónnee seen ndaw ci biir ça il faut pas qu'on ak réew mi. ay responsabilité daf ñu war ci réew mi parce que réew mi kenn du jóge Corée wala ngay jóge euh, France wala ngay jógee États-Unis ñëw dañu ko gouverner nous avons une responsabilité ñun ñëpp de construire le pays ensemble mais bu ñu yaakaar ne yow yaay gouverner nga war a gouverner nga falu gars yi commencé di xeex di xeex di xeex di xeex ba nguur gi jeex duñ fi liggéey dara euh, may jox exemple quand Ablaye Wade est arrivé mu ne nañ def fii ay chantier yu mag dañ ko fay yuuxu di wax lan des éléphants blancs yéen dégg ngeen ko ñu coow ko ne affaire bi baaxul affaire bi baaxul ñu dem ba affaire bi taxaw ba Sénégal tey am loo xam ne dañ ko daan dégg ay Maroc ak ay Égypte ci Afrique wala Afrique du Sud lañ doon dégg mais mosuñu ko dégg feneen ñu dem ba am ko gars yi de ala wala mi ngi nii baax na. mais est-ce que tey pouvoir bi am na intérêt ñu amal élection locale yi. mais pouvoir bi ñëpp ci yem na yi ñu jógee ay manifestation yoo xamante ne ñu bari ñoo génn ci ci sénégalais yi wane seen mécontentement euh, ci crise socio-économique boo xam ne ñu ngi koy dund est-ce que du waxtu bi moo arrangé wul le pouvoir ba tax na bugg mais est-ce que benn weer bi ñu koy déplacé entre décembre ak janvier le pouvoir bi liggéeyutoon ba léegi mën na ko ci liggéey c'est pas possible c'est-à-dire il faut qu'on de bonne foi ak le pays man dama yaakaar ne nous avons une responsabilité historique de construire le pays parce que suñu génération yi waruñu nekk génération dañuy xeex di xeex ba ñu dem ba mu jeex ñu bàyyi réew mi ñeneen ñooñu ñëw di xeex il faut que ñu am responsabilité gis nga li fi xewoon nii fu may li fi xewoon nii li c'est vrai am na ay am na lu fi xew am na lu fi lu fi xeex mais c'est la responsabilité de tout un chacun tout qui ont engagé ceux qui ont engagé le pays dans cette guerre là nañu def combat mortel. waaw mais loolu ma yegg rek ma tuuti ma yegg rek ñi nga xam ne dañ ne nañ def combat mortel. Mhm. ku nekk na la jaral sa bakkan na nga ñëw soo ko wax ko Sénégal yi dégg ko. gars yi ñëw di xeex am ay bandi yoo xam ne dugg nañ ci fekk ñu am seen alal ñu ñëw toj seen alal yàq seen kër dañu dañ ko euh, liggéey pendant vingt ans mais ces gens là ont une ah, ko jox bu ñu la déggee. dama ne. la dama ne Ousmane Sonko a la responsabilité porte la responsabilité d'avoir appelé les Sénégalais pour un problème privé boo xam ne moom ak Adji Sarr la dans un salon mu ne na leen jëlal seen bakkan est-ce que un problème privé yéen ñaar ñii da ngeen doon xuloo ngeen ñëw ne waa waa waa seen TV na leen jëlal seen bakkan il faut qu'on se la vérité nous sommes des musulmans. mais bu jàppee ne complot la nag. Mm-hmm. comme ne complot la est-ce que complot bi wax ne du complot mais mu jàpp ne complot la un leader xoolal mu jël troisième aux élections présidentielles. du ci dara. troisième bi à la présidentielle non circonstance la xam nga les résultats là sont des résultats circonstanciels. comment su Ablaye Wade bokkoon Khalifa Sall bokk ñeneen bokk li du ko am. dégg nga su jàppee ne complot na jàpp ne complot la mais Sénégalais am na ñoo xam ne jàpp ñu ne complot la. parce que kenn yóbbu ko dans le salon. mais ñu relance la nag. xam nga <laughs> ñu ngi woon ci élection locale yi nga ah. tàbbi ci Ousmane Sonko yow laajaguñ la sax ci biir Ousmane Sonko. si si si dafa ne événement yi non dafa mel ni da nga yàkkam ci débat bi ci Sonko waaw léegi ñu ñëwaat ci ci ci local bi. attends événement yi moom moo ne les événements. waaw événement yi. c'est entre Ousmane Sonko ak Adji Sarr. waaw léegi événement yi léegi mais monsieur le ministre man sama question dafay jëm ci sànq ba ngay tàmbali da nga wax Euh, jafe-jafe gi Sénégal amee ci tenir ay élections locale